ci ci buñ jógee ci tey war a jàngat ci làmbi démb ji mën nañu jox toor Papa Sow mën nañu jox toor Kaaw Siteu loolu mun naa nekk parce que làmb ji ku ci nekk tey ni koy jàngate mais li ma bëgg rek mooy far bi baax na parce que ku ci nekk am nga foofor ndax nit ku nekk xol la am mais ñu dem ci sujet bi nga xam ne mooy li logique ñu waxtaan ci te te yàlla rek tax ñu xool tamit xam ni tey làmb ñun ñoo ci mën a war a mën a jàpp mu jëm kanam ndax Papa Sow man xaj na sax su may wax ci côté boobu mooy dafa nekk mbër moo xam ne si dafa teg empreinte ci làmb tey am ci responsabilité am ay jéego yum ci dox yoo xam ne si tey bokk na mbër yi nga xam ne si tey bokk na mbër yi gën a gën a jox ceeb ci làmb kon soo xoolee ci côté boobu moom moom moo fa ëpp expérience surtout mais nag tumaani Matar Gueye booy xew nga déglu ma. Hmm, maa déglu baax. Papa Sow démb toll na état boo xam ne ci làmb li mu li mu àndal démb wala liñ ko sëf ëpp na ko doole ba yóbbu na ko ci benn niveau boo xam si Papa Sow nekkatul nekkatul Papa xam naa ko bu baax tàkkusaanam yu yu ne fekk naa ko ba heure Moussa la dugg làmb xam nga luy jukkee Papa Sow tumaani hmm. mooy fonk bisam respecté adversaire am respecté ñi nekk ci làmb ji xam fi muy yam ci làmb ba këram mu war a summeeku bëre daal mais état bi démb démb Papa Sow comportement bi mu indi ci stade bi man musuma ko gis ci Papa Sow c'était la première fois c'était la première fois démb làmb ji dem na ba moom ci boppam da koo dépassé man dëgg rek laay wax parce que tey damaa dund ci làmb xam ci fee yu bari xam na mbër mu nekk tey boo nekk ci làmb ak état bi nga nekk comprendre li ma la parce que boo xoolee Papa Sow bi Goro Seck njëkkee jël affaire bi yóbbu ko booy booy tey tourné ko non bi bi problème bi amee sax service d'ordre ñoo tourné Goro Sock ñoo ne ko yow fii amoo droit ñëw fi demal mais booba papa Papa Sow xabtal bi nekk ci moom bu ko mënoon a gérer kon du jëlaat affaire bi moom moo ko yóbbu far force. ba problème lay am. xam nga dëgg dafa neexul damaa bëgg nag nga may déglu dama bàyyi xel. mais Matar mais loolu. xaaral xaaral xaaral loolu. bu leen ci condamné Papa Sow parce que xamul tax. làmb mooy toll foofu. dafa am gàllaaj yoo xam ne si. bu nekkee ci yow mën na la yóbbu ci benn niveau bi. <laughs> li may li may wax nii ba dal na yu bari. dal na yu bari. parce que bisu làmb ji nag moo demal ba toll foofu ndax combat bi dem na ba ñoom ñaar tey muy Siteu bëggut a perte kombam bi muy Papa Sow bëggut a bëggut a bokk bëggut a perte combat bi te combat bi dem na ba ci wàllu mystique foo xam ne si jéggi na dayoo ndax Siteu nag dangeen xam ne position bi mu nekkoon tey bu ko pa bu ko Papa Sow daanoon ak jeune talent bi nekk ci moom ak fi mu ñafe tey ba toll fi mu toll kon fan la jëm. man li ma la bëgg laaj tey. en tant que vraiment xam laa ma maa ngi gis gaa ngi ngi lu sa xalaat ci commentaire mooy li am démb ban jàngat la ci mën a def pour fexe ba mu bañ a amaat ci liy ñëw ci kanam donte li am démb moom weesu na ba pare jàngat nga ci mën a def. jàngat bi ci war bi ci war a nekk xam nga responsabilité bi kan la. Hmm. mooy CNG. Hmm, mais war a organiser CNG. bu man laa jël sax bu tëggee làmbam. fay ay droit am CNG ñooy ñëw couvrir làmb ji avant mbër yi ñëw CNG war nañoo organiser làmb ji ba mbër mu ñëw war nga dend ak say géwal mhm. mbër mu teg sa cumikaay war nga de war nga dend ak say géwal xam fi nga war xam fi nga war a yem xam fi nga mën a defee say mis en train ngay bëree su boobaa problème doo am journaliste war na am fu mu war a yem yaa ngi dégg li ma la woykat war naa am fu mu yem microcentral war naa war naa am fu mu war a yem ba ci mëri mëri deuxième combat yi ku bëree ba pare buubal say bagage nga yëg ci kaw tribune bi làmb ji maanaam expert maanaam espace hmm. journaliste mën a li mën a liggéey problème yi problème yi mañ bari bari ci làmb ji loolu mooy situation bi hmm. yaa ngi dégg la ma wax damay féliciter nag Siteu hmm. li tax ma di ko féliciter mooy franchement parle mu ñu wax kook ñu bañ koo wax Siteu dafa bokk ci làmb ji xale la boo xam ne si ñun ñëpp tey ñu ko faral ak ñu ko farul nañ leen ko encouragé parce que li muy def ci li muy def ci làmb moo tax muy culture muy man a feesal stade démb stade bi la fa nekk yëpp xale bee ko duy macha allah muy xale bu ndaw nag papa saw grand frère am la te xam naa ne ku yéene jàmm Siteu la ndax Siteu ñun ñi bi ñu nekk écrit ba da daan supporter papa saw barke alxuraan da ko daan supporter ku ko jox cër la mais nag bu nu jël tey nii problème bi nii Siteu la xëpp ko ko déedéet Siteu bi problème bi am yëgu ko làmb moo baaxoo tey mbër mu ci nekk muy Balla Gaye am na supporter yoo xam ne si boo amee combat ñi ngi ñëw ñu ngi ñuy def loo xam ne si Balla santu leen ko muy Modou muy Gris Bordeaux muy Lac de Guiers loolu ak làmb ñoo baaxoo mais li gën rek man ak man fi may waxee mooy ñun ñëpp ay Sénégalais lañ ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi nañu xool nu ñu defaree suñu làmb jii macha allah bala muy yàqu. ku ci nekk nag am nga ci part de responsabilité. Mm. làmb démb ji nag ma bëgg ma bëgg tey wax waxtaan bi ñu kese ko làmb démb ji <coughs> noonu rek la mënoon a demee. parce que fi làmb ji yóbbu fi làmb ji àgg tey xam nga lu ko fa yóbbu tumaani. Mm. mystique dafa am important ci làmb mais mystique dafa fort. dafa mën a yóbbu ci doomu aadama def la loo xam ne si tey da nga koy def sax di ko rëccu. xool da ngay teg foofu sa loxo ma ñëw ci Saer Saer Fall donc permettre ku mu développer après Daour tamit xam naa na lu mu bëgg wax Daour bu rëg rek Saer maa ngi lay nuyu ma bàyyi euh, wax sa xalaat. ñu ngi lay ziar di kontaan lool ci bi. jaajëf nuyu Matar Gueye bi tamit. mais maanaam lamb démb ja man xam nga lamb li may jaaxal. Mm-hmm. Abdou Fall dafa jël trois cent policiers. Mm-hmm. mais lamb ji policiers yi nekkoon suuf ñoo ëpp ak Emi Addo bi dafa tuuti mais yow làmb joo xam mi am na yu nekk ci bëriwul. stade amitié dama daan gis dañ koy xaaj su fa teel cité fii su teel passé fii. Hmm. police yi taxaw mais stade bi doo ko gis yow stade boo cité police yi nekkoon ci suuf ñoo feesal biir stade parce que bi ñuy bàkku amuñu fu bàkku mbëri am fu ñu waaxu jëm et puis tamit man li ma jaaxal mooy comme Gora Sock dem na ci foofu mu am coow mais la moo tax policiers yi bàyyi Papa demaat fa. man loolu ma jaaxal la. Ah, justement loolu loolu jërëjëf yàlla na nga gudd fan wax naa man dama ni Gora Sock bi mu fa demee dañ ko wàññi mais Papa Sow bi muy dem dañ ko bàyyi mu dem est ce que loolu wanewul ne Papa Sow am na droit dem fa loolu moom loolu moom sama question parce que yow. mais gis. mais Papa Sow Papa Sow même bu amee droit dem sax Papa Sow mag la ci làmb. man lii am démb nii wallahi la asim ci côté Siteu laa ko doon séentu. làmb safa ji toll na foo xam ne si ni bis bi Papa Sow naa a yóbbu sax ma xam ne yàq làmb ji ma bàyyi ko. mais xoolal làmb ji fi yàq làmb ji ñëpp préparé ko di jënd seen i code xoolal Abdou Fall di ba dama ko yërëm barke Sëñ tubaa daf gis nga bi muy tumbum mi dama ko xos sama yaram bi daw. foofu aussi dinañ fa ñëw maa ngi nuyu baax Youssou Gueye ak euh, grand Pape Fall Mayade Fall. naa leen jël léegi euh, loolu nañ ci def beneen débat parce que dem démb dama gis ni dañoo jënd ay code ba pare am na ñu ma interpellé ne ma maanaam bi ñu demee ba ci biir làmb ji làmb ji dañ koo maye gratuitement ci télé. man kay man kay fii laa ko seetaan ITV loolu loolu loolu loolu yëguma ko woon sax am na ñu ma ci interpellé sànq dinañ ci def waxtaan. Euh, tegal foofu sa loxo ma bàyyi Daoud moom it mu joxe xalaatam boo defee après. ngay continué mooy beneen bi beneen bi ci def mooy. waaw mbër damaa gis benn waay dugg sànq ni mbër yi mbër yi nekk ci baale bi yëpp. silwee si wul. mais baale lamb lamb ji yëpp mais lamb ji yëpp ay baale ñoo fa mbëri moom baal sedd baal sedd am na parole yoo xam ne bu ñu sax tontu baal mu sedd garaaw. loolu non dañuy waxtaan rek dañ maanaam ñu ko sax tontu dañuy waxtaan rek maanaam bëgg a xam ne lamb ji lamb ji boppam maanaam mbër yi ñu fiy coow ñëpp amul kenn koo xam fii lañ def ci baale ñëpp ci baale lañ dëkk mbër nag mu ci bari coow moom mbër moom ñëpp nga am